Bonjour et bienvenue ah ñu ngi yaakaar ni rek vous avez passé très bon week-end donc euh, ñu ngi nii ak yéen comme tous les matins ni ñu tàmmoo di ko defee ak yéen dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy revue de presse mais laata loolu rek damay nuyu ndaanaan bu mag bi ndaanaan ci biir ndaanaan yi di Pape Ousmane. tey daal fi nga génn waaw tey fii laa génn mais tey lu xew a sedd. waaw euh, dafa sa week dafa voilà. nelaw ya ma jàpp weekend bi daal ay nelaw yu bëri laa ci def mais xam naa ni ma ànd nga benn waaye bu sant Balde de nee ma am na fu leen gis de très rapidement rek dañuy jàll ci li nga xamante ni <laughs> non <laughs> que gis naa ne am na ku am bàyyi ma commenté am na ku woo am na ko wax ak yow fa demee hmm? démb xam naa non ma ne wàccu ma sama kër wàccu ma sama kër benn yoon <laughs> <laughs> maa ngi lay nuyu di nuyu suñu internet yi di am mbégte di ànd ak yow comme ni ñu defee matin bu jot ci revue commentée. Aïcha mi ngi noonu euh, comme ni koy defee rek tous les matins dañuy tijjee nag ak ki nga xamante ni moom mooy l'observateur ñëpp xam nañ ne li xew démb Pape Ousmane doon na waa gis nañ ko ci li nga xamante ni moom mooy une yu bëri tey xëyee nañ loolu mais dañuy jàpp rek ki nga xam ne moom mooy l'observateur Falla Paye kooku noonu nga xamante ne docteur la nañ un récit glaçant d'une tragédie familiale. lu metti la Mariama mhm. lu lu lu jéggi dayoo c'est-à-dire eh, et ñu ngi ñaan presse bi euh, ñu dimbali ñu ci flouter kanamu xale yi mhm. parce que amul benn information de plus bu muy joxe ci loolu mhm. donc ñi ko respecté bëriwuñu ñu ngi leen koy ñaan parce que c'est c'est c'est important lu metti metti na trop ci suba la je me suis rendu compte ci maanaam carrière bu brillante la waroon am waroon na dem sax Mariama Mariama Ba il paraît. ndeysaan loolu loolu loolu loolu en tout cas ça fait mal au cœur. non lu doy mm, euh, lu mel ni kenn mësu ko gis man maa ngi soo gis lu mel nii ci Sénégal euh, te piste yi ci feeñ yëpp en termes de lecture dafa bëri. Mm-hmm. déjà li gën a metti mooy un médecin. docteur kuy faj nga xam te ni daanaka ci moom la ñu gën a xaar wér. Mhm. ci niveau yëpp su demee ba à un moment donné ko ba amul lu mu koy fajee lu dul niñ ko dundee pour man y a problème cest à surtout ci contexte bi mu ñëwee nga xam te ni on est dans un contexte trop trop chargé d'émotions au Sénégal. Mhm. au plan politique au plan sociétal même au plan religieux yaa ngi gis coow li am ci diggante waxaabit yeeg ci aju. Mhm. suñ ci boolee tey politique yi ñu ngi jëm ci. local boo xamante ni dina doon local. bu tàng nar na tàng jër en soo gisee de part et d'autre xam naa dina ci ñëw ndax. am na mhm. ci yéegeekaay yi ci yéege. Mhm. suñ ci boolee également euh, yu mel nii nga xamante ni deret lay woo yeneen c'est c'est maanaam c'est c'est trop chargé. Mhm. d'émotion moo tax ma jàpp ni euh, lu metti la euh, bu laloo tamit ci mbëggeel nga gis tamit. koo xam te ni 15 ans do euh, ni mu ko ni mu ko waxee. Mhm. dund na ko soxna si ci jafe-jafe yoo xam te ni buñ sukkandikoo ci lettre bi mu bind. yu ko dab yu ko dal. ci mhm. ménage ci xëy na koo xam te ni dafa jàpp ni soxnaam si mu àndaloon diggante bi yëpp ndeke bugg ko woon ah euh, la ca am yëpp am ci. mu mhm. dund ko ba xëy na mu jàpp ni nii la war a jeexalee dundam nii la war a jeexalee tamit dund ñi nga xam te ne xëy na. ñoo meññee ko ci diggante boobu ci diggante boobu lu jéggi dayoo la c'est-à-dire lecture la boo xam te ne à tous les niveaux mhm. wax naa ko léegi inquiétude mooy ni ki mu dal c'est un professionnel ci wàllu faj nga mhm. xam te ne ci moom la xaar képp ku ku ku déraillé képp ku am lu la metti boo ñëwee ci moom mu dalal la mu mhm. moo mujj moom ñàkk am euh, maanaam dal googu dal googu ñuy xaar ci ñoom jeexal boppam euh, ci nii lu jéggi dayo la ci côté jigéen ñi xam naa on aura l'occasion parce que yéen a ngi ñëw ci kanam bëgguma emboîter le pas incha allah ci fexe traité cas mel ak seen gan mhm. mais lu jéggi dayo la lu metti la euh, ku ci nekk wan euh, boo nekkee ci place am di xam ne di metti na doy na waar en tout cas en tout cas doy na waar te diggante démb ak tey yëpp moo des ci li nga xamante ne moom mooy xelu sénégalais yi ku nekk yaa ngi jox ci avis xam naa dinañ ci indi ay leeral incha allah ci ci ci kanam dañuy jàll rek ci li nga xamante ne moom mooy les échos yaa ngi doon wax léegi réew mi yëngu na ci politique gi ñu xëyee li nga xamante ne rek moom mooy convocation Barthélémy Diaz mu mel ni rek le procureur général moom demoon et rétablir la vérité waaw boo gisee Bart ak ñi mu àndal sax di yuuxu mooy ni dafa am. Mhm. ay précédents yi fi amoon mais quoi qu'il en soit il faut que également que tamit ñu rétablir. la mhm. vérité sur cette question. Euh, parce que ñu ngi jëm ci ay local on comprend que fi mu ne nii combat bi. Mhm. Euh, maanaam euh, ci média bi la ci fexe tamit ku ci nekk am maanaam l'opinion publique. favorable la ci li ñu jëm. maintenant ci coowal Ndiaga ak euh, Barthélemy Diaz man li ma ci métti rek te mu désolé ma rek mooy nii mhm. te loolu ci justice bi lay jëm mooy pourquoi a-t-on attendu dix ans après ba léegi vidéo bu ñu dossier bi nga xam te ne depuis 2011 de Mariama c'est-à-dire loolu man man man man mhm. d'abord c'est c'est cette lecture que j'ai mhm. de cette justice boo xamante ni si on met euh, en cause non politique cest à dafay am ay manquement am na lu yoo xamante ne mënu leen dédouaner à cent pour cent mhm. donc ñàkk leen a dédouaner à cent pour cent ci dossier bi surtout loo xam dafa traîner dix ans ñu ko vidé bu yàgg mooy indi ay suspicion te suspicion bi tey dafa dem ba bëri ci justice bi de telle sorte que tey muy procureur général bi jug di rétablir la vérité dafa jafe mu dugg ci bopp ñenn sénégalais yi nga xam te ne jàpp nañu ne parce que Barth a été candidat ak période bi moment bi nga xamante ne moom lañ taamu effectivement uh-huh. mais même bu fekkee c'est vrai depuis le 7 juillet uh-huh. la ñu ko notifié que ni renvoyé nañu sa sa sa sa ce procès bi. Mhm. jusqu'au 10 novembre effectivement. Mhm. mais ça aurait été moi peut-être euh, procureur mu ngi koy wax ne mënuñu maanaam rattaché ñoom seen calendrier. Mhm. ak calendrier électoral seen liggéey la ñu def mais c'est-à-dire ci moment bi mu ñëwee la moment la boo xam ne comme ni ma ko waxee sànq wax naa le réew mi dañu toog ci ay fragilité yoo xamante ni wax naa léegi chargé d'émotion ci au plan social. politique gis nga coow li. depuis bi ñu ko dañ koy convoqué euh, camp wu euh, Barthélémy Diaz moo xam Khalifa Ababacar Sall ak Ousmane Sonko. effectivement ils sont revenus à la charge pour mhm. dire ni du nangu mhm. li daal Khalifa Ababacar Sall daal Karim Meïssa Wade que kii di Barthélémy Diaz nekk euh, l'agneau du sacrifice un peu plus tard c'est-à-dire ñoom bi ñu defee seen point de presse à 13h mhm. à 17h mu am riposte ñi nga xam te ñoo bokk ci benn bokk yaakaar notamment euh, kii di Abdoulaye Diouf Sarr ak ñu àndal na ñoom it ils vont faire face ça veut dire quoi ça veut dire que mercredi bi ñu jëm on va vers un mercredi de toutes les tensions dans ce pays parce que tout simplement y a deux camps yoo xam ne taxaw nañu. Mhm. jàpp ni mbir yi nekkatul combat politique boo xam ne ay gentlemen ñoo ko seet mais ring la boo xam ne tous les coups sont permis et puis même con même même des armes non conventionnelles nañ ko utiliser. Mhm. jëm ci wàll bi pour man nag li des et jàpp naa ni moom moo war a mën a taxaw ngir euh, gérer situation. Mhm. mooy le président Macky Sall ndax yàggoon na ko wax. ne tey responsabilité am mooy réew mi ànd dal. te conseil des ministres bi ñu génn. Mm. woowoon na acteurs yëpp ñu fexe ba ànd ak dal pour man au delà de woo leen. wax mm. leen moom président Macky Sall tey moom mooy responsable de suñu réew. Mm. war na mën a taxaw régler lii et eh, dafay delluwaat ci li ma yàgg a wax ma jàpp ni fii yegguñ ci réew mi ñu egg ci niveau boobu. <laughs> que lu mel nii du dañ mooy ni état parti nga am njiit loo xam te dafa leen euh, président de la république. Mm-hmm. nekk président de parti fii mu ngi am rek forcément far day am ay ñooñam tamit dañuy far. Mm-hmm. te yow nga taxaw. am foo bokk bëgg sa ñoñ am victoire te ngay njiitu réew. Mhm. dina jafe lépp loolu laal ñu jàpp ni xëy na da nga ko def dans la légalité. da nga ko def ngir fexe le jeu soit démocratique comme on l'a toujours di mhm. mu bañ a am ay njuuj njaaj dina jafe et bu ci boole woo tamit suspicion yi jëm ci. Mhm. l'administration territoriale bi nga xam ne tey ñoom ñoo war a organiser les élections. jaarale ko ci yoon nga gis ay liste yu bëri. yu euh, opposition bi. foreclose ci euh, gox yu bëri. loolu yëpp di ay suspicion yoo xam bu tegoo ci moom moo tax ma ne la cocktail bu doy waar. lañu am jamono jii te bu taxawaay dëgg amul réew bi mun na basculer ci beneen ci beneen jéego te on encore les stigmates. Mm-hmm. Euh, de de de de li nga xam te ne moo nekkoon. Euh, événement wu mars mars bi en tout cas ñu ngi koy euh, wax ci suufant donc espérons que ni rek du ñu jëm ci lool parce que loolu moom yaakaar naa ni sénégalais bépp sénégalais rek soxlaatul lu mel noonu. Ah dañuy jàll rek euh, ci Walf Quotidien Walf Quotidien rek dañuy des li nga doon wax léegi diggante ki nga xamante ne moom mooy Sonko et Khalifa ñu ñuy xamal ne rek Sonko et Khalifa prêt pour le combat maanaam daal mbir mi rek la la. moo tax ma ne la. Mhm. rapport de force bi foofu la jëm. Mhm. te te te te nee naa la dafa mel ni dañoo substitué wu li ñu doon xaar ci politique. Mm-hmm. à ce rapport la de combat de gladiateur. Mm-hmm. nga xamante ni léegi la euh, le camp d'en face. Mm-hmm. c'est-à-dire l'opposition incarnée par le pré euh, par par le Ousmane Sonko ak ñu mu àndal parce que tey dafa mel ni dualité bi leer na nekkatul ay Pape Diop ngay dégg euh, Karim Wade ngay dégg wala ñeneen. mais dafa mel ni rapport de force yi de force yi dafa am ñaar ñu mu génnee. effectivement mooy le président Macky Sall. ak Ousmane Sonko même bu fekkee sax xalifa Ababacar Sall mu ngi bekk ci Yewwi mais on sait Khalifa ak tempérament boo xam te ne c'est pondéré. Mhm. mais ku mel ne Ousmane Sonko il n'en parce mhm. que soo waxee mu ne la on a en face quelqu'un koo xam te ni xamul yoon xamul démocratie. Mhm. xamul jeu boo xamante ne dañ lay gañ nga dem li mu xam mooy ay njuuj njaaj ay dóor. ay ay ay armes non conventionnelles. moom it il s'est ce niveau boo dégloo keroog conférence de presse il a clairement dit sama yoon nekku ci ñu wax ne Ousmane Sonko c'est un homme violent moom il assume cette responsabilité cette posture qu'il a mhm. face à à l'adversité ak ki nga xam te moom la jàkkoor loolu moo tax mhm. ma ne la dañu jëm ci ci ci ci loo xam te ne bu fekkee taxawaay dëgg amul mhm. et aussi ñi nga xam te ne tey ñooy les régulateurs sociaux ñu ngi leen ciy woo mooy ni jeu bi dafa leer ci seen kanam te dégg nga nee naa la sànq waa benn bokk yaakaar nee na ñoom it ils ne vont jamais se laisser faire ça veut dire que ni tey li ma wax léegi mooy am mooy dañu jëm ci combat dañu jëm ci ay ay ay ay ay événements yoo xamante ne am luñ ci jotu dund wax naa la ko léegi. mooy le mhm. les événements de mars. Mhm. nga xamante ni stigmate yi ba léegi braise la. Mhm. mun naa ni braise boo xamante ni li koy attiser mu ngi fi ba léegi. fayul fayul mu ngi ci yomb te événement de mars yi la. ñoom ñam nañ ko mooy ñi ànd ak Ousmane Sonko ne euh, nguur gi def reculade. su fekkee ni loolu lañu téye ba léegi jàpp ni force la ci ñoom mooy ni effectivement. on va vers des lendemains très troublants pour le Sénégal. Mhm. et que taxawaay dafay laaj mooy de part et d'autre appel à la mais ñi ma gis mooy ni tey. Mhm. ils sont figés mooy ni ku ci nekk ñoom jàpp nga ni yaa nekk ci dëgg. ña ña leen war a waxal war a amee taxawaay boo xam ne ñu permettre ñu mucc ci lii. Mhm. ñooñu laay woo ne leen attention de part et wax nañu luy nuru ni xeex la ñu jëm. combat lañ doon confrontation lañ jëm te boo moytul comme ni ñu ko dundee mois de mars ñu am 14 yoo xam jusqu'ici waxuñu ñan ñooy responsable. bu buñ ci sóobuwaatee dina am yeneen bakkan yu te bu boobaa it na mu meram ci marché bi lay demee mbir yi day tàggatee ba taw loolu buñ ci jëmee ci local yi on va vers des locales très très mm-hmm. te Sénégal bu dundoo leen mun na basculer ci leen loo xam ne ñun ñëpp amuñu intérêt ci seetaan lu ñu en tout cas mi ngi noonu wax nga ko léegi rek euh, ginnaaw euh, ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy Sonko ak Khalifa ne duñu euh, on va passer le CFR Benno riposté ki nga xamante ne moom mooy li quotidien moom moo ñu xëyee loolu nee nañu ville de Dakar Benno fait bloc derrière wax nañ ko léegi ah. Diouf moo tax ma ne la xool. Mhm. automatiquement dès l' que ñee pare nañ seen conférence de presse. Mhm. ci la waa Benno annoncé seen conférence le même jour. Mhm. fi nekkoon et des responsables de la euh, te ñoom ñëpp kaddu yu ñu wax en dehors de euh, li nga xam ne moom mooy argument de base bi taxoon. waaye Yewwi defoon seen conférence de presse. mooy ni dañoo seetlu ni département ak commune yu bëri dañoo neenal seen i te ñu jàpp le camp d'en face amul ci kenn koo xamante ni gis nañu ci coalition benn bokk yaakaar ku yóbbu listam ñu rejeté ko donc ñu jàpp ni loolu mooy ni président Macky Sall dafa bëgg foqarti élection yi jaarale ko nag ci administration territoriale bi nga xam ne ñoom dañu dañu dañoo jiiñ l' administration. Mhm. dégg nga Ousmane Sonko wax ni même si il faut poursuivre individuellement ñi nga xamante ne tey ñoo représenté l' administration territoriale nekk derrière le président Macky Sall. Mhm. mu leen di wax ñuy def ak dindi. xalifa Ababacar Sall bi mu ñëwee tamit également même lancé la waxee que ni dinañ dinañ dinañ dinañ dinañ porter l'affaire devant les juridictions mais que combat la boo xamante ne en dehors de l'aspect juridique dañuy wàcc sur le terrain le camp d'en face duñu ne bàyyi noonu mooy Abdoulaye Diouf Sarr ñoom it ne duñu nangu au-delà de parce que nee na ñoom maturité Euh, mhm. maanaam ñàkk am maturité politique moo war a ba ñu ci ëpp seen liste. Mhm. ñu rejeté ko un mhm. ñoom ils en conséquence moo tax xëy na dunduñu loolu. quoi qu'il en soit ma jàpp mooy ni argument contre argument la ñi war a arbitrer war taxaw ci diggante bi ngir ne suñu réew du basculer fi nga xam te ne ñu ngi ko njort te man jàpp naa ni. lii ñuy wax nii buñ ko bay bayal suñ ko lee réew mi dina jëm foo xamante ne Mariama Mara day taali. duñ ko antanatif moo tax ñooñu war mën a taxaw. ngir fexe encore l' yi ñu war a def. ngir fexe mbir yi dal ñu jëm ci yeneen argument yu uuteeg l' argument de la force suñ ko deful pour man élection yi ñu jëm dinañ ko biaisé et il se pourrait quand même duñ jëm duñu amal ay élection ndax Ousmane Sonko wax na ko. Mhm. neen lu mel nii bu wéyee te rétablir ñu leen ñu leen seen droit. Mhm. mooy ni élection du am ci réew mi te ñoom buñ nee élection du am ci réew mi. beneen camp bi ne ñoom seen euh, seen droit mooy nañ ko nañ ko organiser te dañuy dem ci élection. Mhm. mooy ni cocktail bu problème euh, dina am dina doy na waar trop mais Pape Ousmane euh, dafa mel ni ñaari parti yooyu kese ñoom ñoo nekk ci élection yi de. déggoo ma ne la ana ñeneen ñi fu ñu nekk. moo tax ma ne la dafa mel ni dualité boobu noonu. Mhm. la ñu maanaam ñaari camp yi imposer wu ba fës ci. mooy la coalition Yewwi mhm. incarnée par Ousmane Sonko suñ ko waxee dañuy jël baromètre dernière élection présidentielle yi nga xam te ni il est venu troisième effectivement euh, euh, euh, Khalifa Ababacar Sall demul woon élection mais bu fekkee bu ñuy remonter un peu plus loin ci mhm. local yi mhm. quand même taxaw Dakar kenn dootul waxati doole ji mu am ci Ndakaaru ngir communes yu bëri tey ñoo ko téye mais li ma bëgg a wax mooy ni incarné par l'opposant Ousmane Sonko tey bu dee nekkee ci coalition forcément benn bokk yaakaar nga xam te ñoom ñooy majorité ci réew mi en dehors de opposition bi nga xam incarné par Ousmane Sonko ce qui fait que dualité boobu noonu moo nekk au sommet. Mhm. ñeneen ñëpp dañu wàcc. dañuy wàcc muy Bougane Gueye Dany muy Pape Diop muy le PDS. Karim mhm. Wade ñoom ñëpp ñu ngi ci beneen niveau bi même bu fekkee jéem nañu ñoom nga fexe aussi ñu am benn niveau ci langue bi tey quoi qu'on puisse dire ñi fës te feeñ mooy le camp de Ousmane Sonko ak euh, camp bi nga xamante ne mooy benn bokk yaakaar forcément dañuy jëm ci. dualité bu doy waar ci local yi ñu en tout cas tàng na trop ci li nga xamante ni moom mooy diggante ñoom euh, waa waa Benno Bokk Yaakaar ak euh, Yewwi Askan Wi ñuy xaar rek euh, dal ci ñoom ak jàmm ak salaam dañuy jàll ci li nga xamante ni moom mooy le soleil le soleil nag ñoom dañuy xëyee ci leneen loo xamante ne ni wàllum santé la li nga xamante ni nee nañ c'est signe qui hépatite qui alerte c'est signe des hépatites qui alerte du moins maanaam douleur aux côtes jaunissement des muqueuses courbatures ñu wax rek ci li nga xamante moom mooy hépatite B. loolu def ma bëgg a wax ne en dehors de local yi. Mhm. am na ay priorité te lii. te wér gu yaram ci la bokk wér gu yaram mooy fexe ba wax nit ñi it waaw jongante baax na yooyu yëpp baax na waaye attention am na ay feebar yu mel ni hépatite te sonal loolu askan wi. Mhm. Euh, te ku gis signe yu mel war nga ko mën a bàyyee xel. dem très mhm. ñu mën la diagnostiquer effectivement feebar yu mel ni ak yeneen yu ko niru. ñoo sonal askan wi. dama jàpp ni en dehors de relever le plateau technique. on devait pouvoir di di gën a mëne. jox ma laa ci opportunité voilà ñu mën a fajoo ñu mën a fajoo ba pare. ba pare mm-hmm. ba pare teg ci la l' aspect prévention xam nga man yaa gën a wax ni. Mm-hmm. réew mi dañu desal ginnaaw loo xam te ne tey bu ko jiitaloon. Mariama muy yow muy man mun keneen duñu soxla di dem hôpital waaye nag. Mm-hmm. benn jour dama ciy waxtaan ak benn kilifa. docteur bu mag mu ne ma Ousmane yow li ngay wax nii buñ ko bërilee ci réew mi mooy ne ñun dootuñu am ci xëy. parce que ñoom seen xëy mooy ni nit ñi feebar fekk si leen. fekk si leen effectivement mënuñoo ñàkk bañ a feebar mais li bëgg wax mooy ni l'aspect prévention mooy naka la ñuy def ba feebar bi mhm. gane ko ba du yegg si ci nit ki loolu bu ñu ko bëri loolu koppar yu bëri ñu dugal ko ci pour man dinañ gagné yenn feebar yu bëri en terme de prévention. Mhm. mais feebar mënta ñàkk à moins que ñu ñu def di Yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle woon euh, nii euh, dañ ko doon jox cadeau ba boolewaale ci benn médecin Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñun day xeet lañ boo xam te ne duñu soxla. Mhm. médecin. mu ne ñu ne ko am ah, mu ne waaw mu ne ndax dañu ne xeet woo xamante ni euh, suñu xiifee la ñuy lekk te bu ñuy lekk duñu lekk comme ni sàmben yeeg euh, <laughs> mbayeen yi di def lekk lu doy rek la def ba partie bi waral def ndox ak air du ca ne mm. mu ne ñun duñu xeet woowu mu ne te loolu képp ku ci sax feebar du la gaaw a ganis en tout cas mooy boo xiifee ngay lekk te boo mm-hmm. lekkee lu yem ngay lekk bàyyi sa maanaam sa biir bi nga xaaj ko ñetti partie <laughs> benn bi ndox benn bi air. benn bi lekk <laughs> waaye boo jëlee partie air ak ndox nga def fa lekk. Uh-huh. mooy ñi nga xam bu ñu tëddee dañ naan <laughs> kan moo ma tiim. doy na waar en tout cas fekk na seen biir yi ñoo yëg. ah dama ñemewul wax rek mais. côté euh, en tout cas ñi moom ma ko wax mu jëm kaw mais sama mbokk si si si say daal am nañ ci wàll bu baax a baax a baax dañu rek daal di jàll ci li nga xamante ne moom mooy sport tijjee ko ak euh, sunu làmb mu mel ni rek euh, ndaw ndaw Sénégal yi nga xamante ne ñoo nekkoon fële ca tournoi CEDEAO bi dañu rek daal di jël ndam li mu nekk huitième fois pour le Sénégal moom laa bëggoon wax dama bëggoon wax ne du gulet Sénégal moom daanaka saa yu ñu <laughs> moom <laughs> ci lu ci dafay wane ne tamit Afrique xëy na ñun làmb dafa bokk suñu cosaan. effectivement am na solo sport mhm. national. ñu xam ko. xam nga tamit avance boobu ñuy am. Mhm. Euh, ci euh, le continent. Mhm. mooy justifier lu mel ni mooy saa yu ñu demee ci compétition yi rek. lu ci ëpp ci ndam yi féetewuñu. bëgguma nag sori ci parce que xam nga ni Babacar suñu làmbaloo bi dina ci ñëw. ñoom euh, te mu ngi woon ci ci ci ci ci ci ci jotaay bi. di ci def liggéey bu am solo li ñuy def rek mooy ñu féliciter. Euh, CNG mi nga xam ne def nañu liggéey bu am solo ci waajal ñi nga xam te ne ñoo waroon dem mhm. représenté suñu réew ci jongante yi ñoo nañ mhm. am ndam alhamdulilah ñu xaar nag moom vraiment ñun ñooy ñoo fi ñoo fi tegagum macha allah la ñuy wax laf cet ah, dañuy rek laataa ñu tëjee ki nga xamante ne moom mooy record moom sax la ñuy tëjee ñoom nag mu mel ni nee nañu 12 lions attendus au premier galop ce lundi Sénégal dina jongante ak ki nga xamante ne moom mooy Togo ni ki alxames bi ni jub waaw awma ci nag euh, njàqare mm. waaw man xam naa ni Euh, Togo dinañ jaar ci kawam jàll. Mm. waaw man gisaguma euh, pour le moment équipe boo xam ne war na mën a inquiéter le Sénégal même bu fekkee yàgg nañu wax ni euh, ça ne se joue pas le papier. du ay mm-hmm. commentaires comme yi may wax nii moo tax équipe bi gagné. Mm-hmm. mais au regard de performance individuelle yi ñu am te jusqu'ici. Mm-hmm. Aliou Cissé quand même mu ngi essayer ay combinaisons yoo xam te ni ba léegi mu ngi joxe ay résultat même bu fekkee. boo xoolee fond wu jeu bi. am na yoo xam te ni des na. Mhm. mais quoi qu'il en soit ak lu mu des des finalité bi mooy li ñuy li ñuy li ñuy bàyyi xel. te li mhm. ñuy bàyyi xel mooy résultat jusqu'ici. résultat ñu ngi am ay résultats ma jàpp ne tamit bii ñuy daje Togo moom jàpp ma ne dina jafe lool ci ñun. kon boog mën nañu continuer rek dañuy àndil li nga xamante ne moom la ñuy yaakaar ci ñoom mooy ndam li. Ah, euh, moo fa nekk. moo fa nekk ayca kon am nañu <laughs> yaakaar noonu lañ ko déggandoo ay ci eh, laataa nag mooy tëj li nga xamante ne rek eh, moom mooy revue des titres bi mm-hmm. tey dama leen di bàyyi rek eh, benn brèche ci ki nga xamante ne demoon nañ fa muy Matika Crèche waaw Matika Crèche ne madame mbay au passage nekk fële na la ci Foire di di jàngale ay ay bébé ay xale Euh, jàpp ci moom nee na à partir de deux mois. ko am xale doomam boo ko andee mu jàngale la ko am na solo. ak programme yi nga xamante ne moom lay def foofu. programme et am solo tamit mooy ni mhm. koo xamante ne def na plus de presque vingt cinq ans aux États-Unis doon mhm. jàngale. Mhm. tout américain yi. ne nag am naa expérience boo xamante ne euh, reconnaître nañ ko au niveau mondial. damay dellu sama réew. ngir fexe expérience boobu ma am ma bénéficier ko. doomu waa réew loolu pour man. courage la patriotisme weesu loolu bu ñuy natt rek patriotisme ci politicien attention mhm. am na solo waaw nañ koy natt tamit ñi nga xamante ne seen yoon ci appareil politique yi te ñu ngi jëriñ réew mi ñu ngi jëriñ loolu la def ñoo mhm. wu effectivement fexe ba li nga xamante ne programme la baax fële mhm. dëppale kook li ñu yor fii jox ko suñu ndaw yi ci wàllu formation et puis ci en dehors de li mu leen di jox ci wàllu xam-xam mu ngi ci boole li nga xamante ne tamit des fois dafay gàllankoor ci ci xale yi mooy seen seen wàllu lekk parce que des fois dañuy gis xale yoo xam dañuy xiiboon mhm. xiiboon booy tax ba suñu jàngee tey suba duñu ñëw ñàngam mhm. moom day liggéey ci parti boobu mooy ne xale yi foofu noonu wàllu restauration vraiment yu am solo leen leen di jox mhm. ñu koy jëfandikoo te loolu yëpp ci xam la ak ci ay orientation nit ñi wóolu ko pour man ku mel noonu war nañ ko mën a dooleel et puis vous avez fait le bon choix def découverte jëm ci euh, structure bu mel noonu xool ji ko comme ni nga wax nii xam naa ni moom la ñuy bàyyi ak suñuy internautes ñu découvrir aspect boobu jëm ci jàngale. xale yi euh, xale yi boole programme bi nga xam te ñu ngi koy enseigner aux États-Unis ak li nga xam te ne am nañ ko fii Sénégal bu ñu ko boole jàpp naa ni cocktail bu am solo lay doon te ñi ci bénéficié wu mooy suñuy doom suñuy sët suñuy jàbaat ak ñi nga xam te ne ñooy. suñuy am di jàmm. en tout cas am na solo këpp képp koo xamante ne rek soxla nga ko mën nga fa jaar diis nañ environnement bi ni mu mel. li nga xamante ne moom mooy. contenu bi muy maa fa de woon <laughs> ah. environnement bi macha allah xale yi ñu ngi si jàmm ak salaam. donc mën ngeen jaar rek wala ngeen dugg si suñu site euh, pour am ci ay yaatal yoo xamante ne ni jotu nañ ko fa dem gëstu ji Pape tey loolu lañ leen andiloon ci li nga xamante ne moom mooy revue des titres ma leen di jox. Euh, dig daje suba incha allah même heure waaw maa ngi doog a sentir nag maa ngi doog a nekk à jour instant ah. bi instant yi maa ngi doog a ñëw sama journée bi ngi doog a commencé am naa sànq kii ba ma jàppoon dimanche mais là maa ngi doog a nekk à jour. wallaay mhm. te xam naa da lay gën jàpp ndax seen cas mu ngi ñëw. mu ngi ñëw mhm. euh, te da ngeen war a continuer incha allah ci aspect boobu ñu ubbee. ànd ceeg seen invité ñu leen di gërëm di leen sant internet yi ne leen la ñuy dajawaat bàyyi leen ak Matika Crèche. incha allah Aïcha c'était tout pour aujourd'hui rendez-vous demain incha allah gis ni defal nga ñu li nga xamante ne moom mooy visite des lieux dañuy ñëw rek euh, waxtaanee li nga xamante ne moom mooy Matika crèche d' abord dañuy expliquer lu tax Matika crèche. waaw Matika crèche bi euh, euh, man d' abord maa ngi leen di remercier yéen tamit ci déplacement bi ak ni ngeen ma toppee ba ñu def visite guidée bi Matika crèche mati bi sama maam laa tuddee école bi cas bi bi may bind sama projet pendant deux ans si canapé laa laa doon laa doon toog. su ma bindee ba kii damay sonn tëdd ci canapé bi donc ma tàmm fanaan ci kanape bi léegi nag sama benn jeune frère Cheikh Ahmadou Mbaye euh, saa yu ma woowee ni ma Matika Matika Matika Mati donc euh, le le nom Matika m'a m'a plu et je l'ai adopté. moom la topp ba léegi moom la topp ba léegi mm-hmm. euh, dañuy jàll rek ci li nga xamante ne moom mooy création bi li nga xamante ne moom ngay def ci biir école bi jot nga ñuy wax nga da nga am expérience aux États-Unis l'idée t'est venue d'où fan nga jëlee idée bi ñëw fii installé fi li nga xamante ne moom mooy crèche maternelle bi. waaw euh, man euh, petite enfance dafa nekk sama passion fii jàngale naa fi quinze ans à Sénégal balaa may dem Amérique donc euh, bu ma ci boolee 21 ans yi ma def Amérique dafay nekk 36 ans yoo xamante ni am naa ko expérience ci jàngale. léegi nag bi ma demee Amérique vraiment jàngale ba ci élémentaire bi dafa metti woon ba pare difficile xale yi difficile. ma ne nag xam nga lan la xaar naa dem jàngi ñi nga xamante ni ay moominu yàlla lañu donc foofu la ma passion bi duggee fait mais euh, avant euh, euh, xale yi nga xamante ni ñoo nekk élémentaire laa daan jàngal bi ma jàngee petite enfance nag après pratiqué nag pendant 15 ans maintenant mbëggeel goo xamante ni la ma sama digganteeg xale yi donc foofu la ma passion bi duggee ma liggéey ci ñoom jàngal doomu américain yi vraiment nag ba am ci ay lijaasa yu bare bare xam te xam nga ni doomu américain moom mooy loolu. jàngal leen yombul jàngal leen yombul. donc après bi ma toogee nag euh, ba xaw a nag euh, bon euh, def naa fa 20 ans immigration nag dafa metti ma xaw a sonn nag ma ni xam nga lan la ma ñëw sama dëkk xool xool ni crèche yaa ngi fii bari pendant deux ans maa ngi bind projet Matika crèche di ñëw fii crèche yi bari mais formation bi amul woon donc man ci loolu laa laa commencé di ñëw par trois mois 4 mois. di ñëw di former matrice de crèche yi début bi dama ko doon maye mais après xam nga rek billet d'avion yeeg yooyu day cher mais dañuy joxe lu ndaw lu lu xaw a en tout cas kii loo xam day couvrir frais yi pour ma former leen euh, ci euh, au du métier de la petite enfance. donc noonu laa commencé pendant deux ans euh, may ñëw di former di former former naa fii former naa Tivaouane bi nga xamante ni fa laa dëkk en partenariat avec l'IEF de Tivaouane donc ak ay may leen ay dons parce que nag. comme sama sama passion la damay gis ni yenn possibilités yu Sénégal amul te ñun Amérique ñu am ko loolu laa xooloon après nag may indi ay dons ay matériel de crèche ak yooyu yëpp di ko maye. donc pour répondre rek à question foofu la ma affaire bi duggee léegi nag ma ni ah mais kuy xalam di ci jaay. barke ba yaay borom mm. léegi il faut man ma ubbi wan nit ñi ni aussi naka la li ma daan jàngale ci théorie léegi mu nekk en pratique. parce que ñi may jàngale nag léegi dama leen di wax ni leen dee leen ñëw fii le samedi ngeen xool environnement bi gis nga ni ma la expliqué sànq environnement bi crèche wala maternelle du rek da ngay sànni matériel fu mu la to fu mu la neexee déedéet dafa am environnement nu ñu koy defaree donc rek euh, foofu la ma affaire bi neexee te ba léegi nii xale yee ma gën a lu ma mën a am am na solo parce que gis nañ ko ci biir euh, ni nga xamante ne yaa ngi koy comporté ak xale yi waaye tey bu ñu ñëwee ci li nga xamante ni moom mooy programme bi parce que da nga ne jël li nga xamante ni moom mooy euh, mu États-Unis bëgg adapté fii ci Sénégal. waaw xam nga programme mu États-Unis moom euh, dafa dafa jël xale yi dès le maanaam am na kii bu ñuy wax curriculum créatif nga xamante ni dafay teg ni xale bi bu juddoo da ko war a liiral le langage. ah euh, de de la naissance naissance ba ba un an foofu da nga koy dimbali mu développer ay sens am euh, te loolu dafay am solo le développement des sens lu muy amee solo mooy lenn lu ci xam ne fonctionné wu rek ci moment boobu nga ko mën a détecter par exemple xale bi su fekkee ni dafa juddu te du dégg kooku am na nu ñu koy testé wala mu juddu te bët yi neexul am na nu koy testé wala mu juddu te nga xamante ni euh, peut-être. mu mu mu muuma am na nu ñu koy testé donc de zéro à un an foofu dafa am activité yoo xamante ni propre euh, yoo xamante ni dañ koy defloo xale bi pour mën a de pour mu développer ay sensam te bu développer ay sensam euh, kii bu euh, dafay am solo torop ci maggam parce que trois ñetti at yu njëkk yi ci xale bi moom loo ci def xale bi jox la ko te loolu mooy déterminer même sa vie d'adulte donc programme mu crèche bi loolu la programme maternelle bi léegi ñoom dañuy def euh, euh, ils mettent l'accent dañuy def accent bi ci mathématique langage euh, science yooyu bu ci nekk dafa am programme am donc programme yooyu su ko xale bi su ko xale bi amee jàngee maternelle dafay gagner un an sur l'école primaire moo tax foofu da ngay gis ni xale bi su commencé first grade dañuy dem ba fifth grade cinq la Euh, kii bi école euh, cycle élémentaire bi 5 ans la parce que au niveau de la maternelle il gagne un an donc man loolu laa loolu laa indi fii. mais euh, bu ma la déggee bu baax loolu rek nga adopté mais man dama am ma dégg ci biir crèche Matika madame Mbaye dégg naa xale bu am 2 mois sax mën nga ko jàngal. ah waaw waaw xale bu am 1 mois sax 6 semaine ñun 6 semaines la ñuy jot xale xam nga 6 semaines déjà gis nga li am solo mooy xale bi del wax ak moom. gis nga langage langage ak euh, le cognitif ak le langage dafa nekk ñaari domaines yoo xamante ni dafa ils sont étroitement liés loolu la ñuy njëkk a euh, de euh, pousse booster ci xale bi langage ak cognitif xam nga xale bi bu juddoo ay réflexe lay juddoo su juddoo ay réflexe un mois un mois et quelque après réflexe yi commencé disparaitre mu nekk ay gestes yu coordonné gestes yu coordonné yooyu nag da ngay dimbali xale bi mu ci dem di ci dem mën a téye ngëpp nga xam ne xale bi ngëpp na kooku objectif la euh, euh, nga liiral ko mu fixer image bi kooku objectif la nga jël benn livre jox ko mu téye kooku objectif la donc ci loolu la ñuy jàngale xale bi loolu la ñuy tuddee jàngal nag xale jàngal euh, ku am deux mois un mois ba nga xamante ni day dem ci boppam comme j'ai dit rek tout à l'heure développer l'amour du jouet développer l'amour du livre xale bi nga koy jox ay jouet jouer dafa am solo ci xale de gis nga jouer xam nga naka la mel ci xale mooy yow nga dem di liggéey euh, seen seen matériel bi ni mu mel ci yéen bu ngeen di liggéey wala seen téléphone yi noonu le jouer mel ci xale sans le jouer l'enfant peut se développer de d'accord mais ah développement bi daal bi gën mooy xale bi di manipuler le jeu voilà yaa ngi doon wax léegi nii lu am solo mooy diggante xale bi ak li nga xamante ni moom mooy jouet bi muy utiliser. waaw euh, xale bi ak jouet bi damay wax ni euh, du jouet n'importe quel jouet nga war a jëndal xale xam nga bu nowel jotee nowel incha allah euh, soreetul bu Noël jotee parents yi lu nekk la ñuy jëndal seen doom yi mais maa ngi leen di wax ni leen xale bu nekk âge bu nekk ak jouet age bu par exemple xale bi su mënee tëye hoché yooyu loolu moo koy may mu développer motricité fine. il foog ni ñu xam ko xale bi euh, su demee ba nga xamante ni toll na ci deux ans doomu tubaab nga jëndal ko doom jëndal ko poupée wala jëndal ko benn euh, li ñuy fowee toggantu yéen ñi sax xam naa ni toggantu ngeen ay suuf ak ay xobu mango donc loolu moom moo adapté ci xale yi am deux ans euh, ku bu ngeen demee ba am koo xamante ni am na cinq ans kooku ay puzzle ak ay jouets éducatifs plutôt moom moo adapté wu pour développement Euh, dans les quatre domaines muy cognitif socio-affectif physique ak euh, langage moom mooy euh, impliqué yooyu domaines yépp buy def puzzle wala muy def mooy matériel bi ma leen woon sànq jël ay outils di ko jéem a créer di am lu muy créer nga jox ko tam matériel éducatif boo xamante ni dafay créer développer créativité wu xale donc il faut que xale yi ñu leen di jëndal ay jouets éducationnels jouet éducationnel mooy xale bi su jëlee jouet bi teg euh, ñu xam ni bal sax baax na parce que bal aussi euh, ça favorise le développement global de l'enfant donc il faut ñu xam daal que ni jouet bu nekk ak âge bu approprié euh, sinon suñu jaxasee lépp rek mën na dooy waar. mën na doy waar d'accord tey jii boo ñu doon wax ci Matika crèche li nga xamante ne moom mooy def différence su Matika crèche ak yeneen crèche yi nga xamante ne ñu ngi taamu di ko gis fii ci Sénégal lan la. ah différence bi nag bari na. différence bi déjà li ma leen euh, expliqué ci environnement yi parce que man visité naa ay crèche fii environnement bi euh, ni ko séparé déjà kooku euh, spécificité wu Matika crèche la niñ ko séparé yépp fii aar bi nekk fii fii manipulative yi nekk fii fii math science ak yooyu xale yi di tourner ci centre yooyu di manipuler di jàngale en manipulant beneen bi mooy curriculum créatif bi may utiliser mooy maanaam tey xale bi da nga koy bàyyi rek muy def par le jeu man damay gis fii ay kii yu bari ñoo xam dañu def tableau man bi ngeen duggee sama salle de classe gisu leen fa tableau tableau soxla wuñ ko loolu spécificité wu Matika crèche la parce que xale bi foog nga bàyyi ko mu defal boppam mu bindal boppam euh, euh, kiyal boppam parce que dafay développer loolu dafay développer self estime am ak self confidence am nga bàyyi ko mu bind nga jox benn exemple rek par exemple ci benn feuille mu bind mais euh, pour xale wu maternelle damay wax sama mbokk yi ni leen euh, en général waxuma ni bon na de mais li gën mooy ñu utiliser toog ci table yi di bind au lieu que ngay def comme élémentaire élémentaire dañuy jël xale yi teg leen l'un derrière l'autre teg tableau bi ni allez suivez fii maternelle ak crèche loolu gënul loolu gënul da ngay def xale yi teg leen teg seen ay table banc teg leen loo leen di jox directive boo leen di jox nga wan leen ñu def ko reproduire ko wala ñoom ci seen bopp nga jox leen choix ñoom choix bi jóge ci ñoom day dëgëral seen gëm seen bopp donc euh, vraiment j'invite mes collègues à éviter le tableau dans les dans les maternelles am na solo euh, dégg nañ li nga wax euh, tey ji bu ñuy ñëwee aussi ci benn point boo xam ne c'est important muy environnement ndax ko wax xale wax environnement la boo xamante ni fa lay évoluer waaw environnement bi comme li ma leen wax rek dafay nekk ci école bi ak ca kër ga xam nga kër ga nag dafay bari ay parce que xale bi euh, famille am moo njëkk a nekk milieu donc euh, bu ñëw ci ñun xanaa à moins que mu nekk bébé wu deux mois mais buy ñëw ci ñun déjà am na lu nekk ci moom loo xamante ni ñun dañ koy test xam ni xale bi am na lu nekk ci moom par exemple xale boo xam dañ koy abusé ci kër ga dañ koy dóor bu ñëwee ñun dinañu xam xale boo xamante ni euh, dafa triste tout le temps bu ñëwee xam nañ ni y quelque chose à la donc ñun loolu aussi dañ koy gëstu dañuy gëstu xale bi xale bi su egsee le matin ñun dañ koy xool ci kaw ba ci suuf xool ko ci kaw ba ci suuf man euh, par exemple euh, am naa fi ñaari xale yoo xam ne dañ ñëw le matin rek lakk dama leen xool rek lakk dama ko photo yónnee ko seeni parent ñun loolu mooy euh, suñu suñu kii te loolu la ñëpp war a def xale bi su jógee sa kër ga ñëw war nga xool ban état la nekk parce que xale bu triste développement bi du mën a baax xale boo xamante ni il est toujours abusé à la maison quand je dis abusé nag yaa a toutes les formes d'abus ci biir famille ba te loolu war nañ ko seetlu saytu ko ba pare woo parents yi waxtaan ceeg ñoom donc euh, loolu aussi ñun suñu suñu spécifité la ok laataa ñu tëj rek li nga xamante ni mooy interview bi ñu wax aussi ci lu am solo mooy côté administration tey profil yi nga xamante ni moom ngay am pour recruter leen ngeen bokk liggéey bi ndax mbirum xale dafa sensible hmm. waaw euh, man euh, balaa may recruter kenn ñi ngeen fekk ci kaw man maa leen former sama bopp donc xam naa ni man ñii li ma leen former aussi euh, xool naa ba xam ni mën nañu liggéey ak man te parce que tey ku doon liggéey ci Matika crèche il faut ma former la ci curriculum créatif il faut nga xam ko xam nu ñu koy administrer ci xale yi xam nu ñu koy évaluer parce que curriculum créatif boobu il faut ñu nga xam xale bi xam noo koy évaluer xam activité yi nga koy yi nga koy yi nga koy jox tous les jours donc tey jii profil bi. mooy euh, ministère de l'éducation nationale ou ministère de la femme de la femme sax laay wax euh, profil bi ñu kii mooy ku am BFM ku am BFM mais ba pare teg ci am formation mais ñoom BFM rek la ñu wax alors man li may li may euh, kii fii mooy amul vraiment des écoles de formation au métier de la petite enfance te loolu gouvernement bi war nañu ci dimbale parce que comme ni nga ko waxee rek xale dafa sensible xale foog nga xam ko xale foog nga xam nu muy développé li muy lekk lan la gis ngeen sànq yéen xale yi li ñu doon lekk ay morceaux yu ndaw lañ leen di daggal pour éviter rek ñu fot wala dara euh, xale il faut nga xam ko donc profil bi mooy il faut nga am BFM bon man ñii ñi nekk ci kaw master la ñu am xam nga donc c'est sur que ni ñii dinañu mën a wax xale yi en francais boo xamante ni parce que nag bu ñu ne en france la rek euh, que ñu dégg tubaab déedéet il faut nga jàng francais boo xamante ni en français bu tegu ci yoon tey jii il faut aussi nga jàng euh, nga def premier secours loolu aussi na ci am solo pour xam xale bi suy lekk ba fot naka nga koy dimbalee loolu am na solo euh, nga pour nga xam xale bi aussi bu fekkee ne am na nu mu demee tuuti nga mën ko bi biberon boo koy jox mu mu coroxaan ak yeneen ak yeneen comme li ma wax sànq rek la sécurité la sécurité et la sécurité c'est important li nga wax noonu xam naa ni gars yi dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu bàyyi la rek euh, nga tàggatoo ak euh, mbo suñ mbokk internet yi ak aussi nga joxe li nga xamante ni moom mooy position Matika crèche. waaw euh, maa ngi leen di gërëm di leen sant ci kii bi ngeen ma jox tey jii ma mën a exprimer wu ci Matika dëgg dëgg kontaan naa trop di ñaan rek Matika crèche yu bari vraiment et puis aussi nit ñi jàpp ci sama mot bi may wax sama mbokk collègue yi. ñi yore crèche crèche du ko mu neex rek ubbi ko crèche il faut nga am formation bi il faut nga am xale bi xam xale bi xam nu muy développé xam nooy gérer parce que administration tam lu am solo la donc vraiment balaa ñuy kii ubbi du xaalis rek moom mooy war a jiital nit ki mais du passion rek tam moo war a jiital nit ki mais xam-xam bi compétence yi war na fi nekk balaa ngay ubbi léegi nag Matika crèche ku ko bëgg a euh, gis ñu ngi leen di invité ngeen ñëw visiter ko ñu ngi fii Ouest Foire euh, ci wetu euh, euh, brioche dorée bi suñu numéro téléphone mi ngi nekk 77 445 43 35 ma leen di gërëm di leen sant. merci beaucoup di leen ñaanal aussi ci àjjuma ji.